bismil ilaahi ci barkeb say ci faddilu buru yàlla dolli noo ay maqaama yàlla jërë ngeen jëf yi bàyyi xel MPROD yi tey nag njàqare ak tiitaange laa ñëwee ci kër Sëñ Cissé borom finance dama ñëw fekk ko ci benn xaal dafa mel ne dafa am lu ko metti nag waaye loolu danañ ci andi ay leeral yu bare bëree bëri dama ko ñaan na ko sarax ñu ngir ñu def émission bi nga waxtaan ak sénégalais yi parce que coow li ak wax ji tamit bëri na sëñ bi euh, dañ lay bàyyi nga nuyu ak askan ñu soog a dugg nuyoo mënul am te lii may wax sax damay jóg taxaw lu ma réew mi su gisee ndax man awma kudut alaaji Malick te réew mii di Sénégal koo mën a doon foo mën a dëkk boo laajee alaaji Malick ma dal sa kaw barke Serigne Babacar Sy alaaji Malick maa bëggul ku koy cof ci réew mii ñu ne. loolu dana kenn du ko cof sëriñ bi foofu bu ñu fa teelee dugg émission bi du yegg ndax xam nañ sa cofeel ci alaaji Malick te tey dañ fa ñëw ngir waxtaanee xam-xam waxtaanee njariñ waxtaanee secret bi nekk ci ñaan yàlla parce que sénégalais yi dañ la namm te sénégalais yi dañoo bëgg génn. jëflante ak sa jëmm ji sëriñ bi tey nga bëgg ñu njëkkee ci waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy mbirum kaaraange réew mi sëñ bi fi mu toll ñu bëree bëree bëri amatuñu kaaraange ndax rey yi ak dee yi ak sacrifice yi sëñ bii lan moo mën a aar nit ki ba musal ko ci yooyu yëpp. li ko mën a aar du lenn fi ma dalee falaa koy dolleeku mooy ne bu nu bëggee aaru dañuy jël mag ñi warmaal leen teg leen ci sunu kanam ndax nit boo bëggee am lu baax. bëgg loo jublu mu baax dangay ngay wormaal mag ñi bu allahuma ñëwee man laa dimbale réew mi nag fi mu toll ñëpp a mer ñëpp a mer mer gi nu mer nag lenn waralut ko lu dul ñaawteef yi nekk ci réew mi kaaraange am na fi te du fi jeex li ma ci waxtaan doy na duma ma ci wax tey ndaxte kaaraange taxumaa jóg li ma tax a jóg damay lancer appel ku ne xam na ne man ñaankatu yàlla laa ku ne xam ne ne Serigne Cissé soxlaay jaam ñee ko fi bàyyi waaye man réew mi ñiy cof ak mag ñi ñuy cof ak ñaawteef yi fi ne moom ma tax a jóg tey waaye du cadre lii boo ko defee am lii taxumaa jóg ji dégg mënumaa waxtaanee kaaraange tey. mais bi gis nañ fan ni tamit showbiz bi cooli bëri na wax ji bëri na am diw. jàppal diw diw nangam la diw sangam la sa gis-gis ci réew mi tamit bëgg naa nga indi ci ay leeral ci wàllu gisoon nañ la douze bi engagement yi nga ci jëloon ak ñaan yàlla yi nga ci doon def ba lépp rafet mais gis nañ ne après le douze bi ci jour bi am na yenn xeeti image yu yoo xamante ni image yi andi na ay wax yu bëri ci Sénégalais yi jaaxal na ñenn ci Sénégalais yi lu mel ne ñaari góoru jàkkaarloo di fóonante loolu tamit ban gis-gis nga ci am ak ban jàngale nga ci am. njàngale mi dana leer te wuuteeg njàngale yu bari ndax dama dib général lu may jàngale day leer duma wax ci foog naa duma wax ci yaakaar naa bu ñuy wax nag ci image yooyu nga xam ne jàll na dinaa ci mën a leeral ci leeral yu am solo ndax yi ku ne xam ne ne turu góor la Ahmed ku ne xam ne ne turu góor la boo amee turu góor am cadre góor sol yére góor xam nga lu problème bu sénégalais am fim mu toll. jëf ji moom jëfi lan la. problème bi ak sénégalais jëf ji am ca kaw seen ba jëf ji jëfi lan la ak lan moo tax ñu jëf jëf ji xol yee sedd wala lan la seen yaram yëg ba ñu jëf jëf jooju. lii mooy wax ji. waaye kenn naatablewul ne. ëmma di turu góor la yaa ngi dégg ëmma mhm. di turu góor la li mu sol yépp yëree góor la sol kon lan mooy problème bi diggante sénégalais yi ak ëmma di ak amet mooy lan moo indi ñoom ñaar ñu akkulaatante lii mooy problème bi mhm. waaye du problème bi est-ce que ñoom góor lañu du góor ñëpp xam nañ ne góor lañ ndax kenn ku ne yaa ngi denc soxnaa ki njaboot. Mhm. am na ngay yaa ngi denc soxnaa ki njaboot. lan moo waral ñoom ñaar ñu jonjante seen gémmañ lii la sénégalais yi di laaj. lii la sénégalais yi laaj. seen xol yee sedd walla danoo yëg luñ mosu yëg wala qu'est-ce qu'il lum da lii mooy problème bi digganteeg sénégalais yi. résultat ñaareel ba. gis nga nit ki. buñ la dóoree fenn. yaa fa dóorlu sa bopp kenn dóorul la. ndax yow yaa départ. di góor. fekki sa moroom moom góor fóonanteeg moom loo dégg bul tooñ kenn yaa tooñ lu sa bopp ak lu mën a xew gis nga safara xam nga kan moo ko moom borom bi subhaanahu wa taala xam nga kan moom moom aljanna borom bi subhaanahu wa taala cat buñ foog ne ci liggéey buñ foog ne ci am xaalis rek lay duggee nit cat dana dugg nit ba dugg ko ci digganteem ak jaamu yàlla nit dina mën a jaamu yàlla mën a jaamu yàlla ba dernier moment borom bi seytaane dugg ko mu am lu mu jëf yàlla yàlla topp ko dara nit nag mën naa nekk ci lu neexul yàlla nekk ci lu neexul yàlla ba ba dernier moment yàlla dimbale ko sëñ Mansour lam daan wax nee na yàlla ku mu topp jàpp la waaye ne ku mu àtte sax màndu nee na lakk la waaye ku mu àtte ci yërmande ak njëgal tabal la aljanna te yàlla ku ne xam ne ne dafa bëri yërmande mais sëñ bi yow waxoon nga musiciens yi ñu takk ay morso ci seen tànk xuma seen loxo mais est ce nekkul ne loolu lañu deful moo tax yenn bagages yi dal ci seen bi xam nga li gën a bon ci àdduna mooy waxee naf su bakkan man wax naa ne doomi village waa laa saalum saalum xajuma ci yenn yi du ma wax ngir bës ndax ñoom ñëpp dajee fa ki leen sagal kenn la muy borom bi kookoo ma sagal man bu ma santaanee leen ku def jëriñu ku deful nag loo ca fekk yow la ku def jëriñu ku def lu la ca fekk yow la xam nga sénégalais ban façon lañ am mag ñi dañ ne xoddeeku ca balaa ngaa lakkale lii la mag ñi wax sénégalais yi dangay wax dara ñu toog di la xaar ci ay fen bu résultat amee ñu doog ko wootee ne ah pourtant di waxoon na ko de bu dee dee fekk ñëpp dee na waaye lii xew bu ci kenn mere kenn na la kenn ku ne xam ne jëmmam ji gis nga nit bu sa cër matee dëgg boo yëgee ci sa bopp mbaax yëg ko ci dégg daaj na mbaax ne ci moom bu dee sa cër man na ci yàlla jëmmi Serigne Cissé sëriñ Cissé ni mu yëgee boppam ne dafa baax na yëg ne dégg daaj jëmmam ji mbaax rek a ci ne safara borom bee ko moom aljanna yëfi borom bi la waaye nañu fexe di rafetal te xam ne ñun ñëpp kenn ñu tiim ndax kenn ku ne sa bopp doy na la misaal waaye nanu xam ne borom bi tiim nañu ñun ñëpp la ma waxoon si laay delloowaat ñiy audit ma procureur yi nekk ci fii nii fii centrale bii munu munuñoo munuñoo audit xam nga ki mën a audit. te du la te mu lay tiim di la gis sa doo ko gis benn jamono. muy borom bi subhaanahu wa taala nañu sedd yàlla cëram. wax ji nañ ko moytu. Sénégal danoo am benn problème. problème bi alaaji dégg daaj du lenn. mooy ne réew mi dañuy tey biñ na fi booy jinne Sénégal li fi nekk ci ay télé. kuñ yaakaar ne mën ngaa wax ci booy jinne plateau bu ne ñu teg fa kenn. ñu ciy wax 15 jours 15 jours booy junne effacé wu ñu indiwaat keneen nanu wax ñi wax ji te liggéey ba machine yi ñu topp di kii kii ji rek te dem liggéeyi waaye jëf ji moom la leen te question laa leen ci tegaatal bu ma ñëwee ñu dem ca question ba jëf ji moom jëfi lan la ak lan moo tax ñu jëf jëf ji man lu problème boobu laa am. waaye kenn weerante wun ne ñoom ñoña ay man na ñoo denc góor lañu ngénte nañ seeni doom yor nañu seeni jabar waaye lan moo waral ñu jëf-jëf ji man lii laa am ak ñooña da ne ma benn jour sëriñ su bëri dañ lay liggéeyal bayre mais xamuñ ba tey bayre sarax yi muy àndal ak kaaraange yi muy àndal nga ne bayre am na ñoo xamante ni dañ lay defal bayre defaluñu la bayre coow coow lañ la defal bayre dina dugal nit ci musiba ci tooxi doona hmm. barki yonentu yàlla Muhammad bayre dina dugal nit ci tooxi doona dama koy faral di misaal man lu ma wax sëñ Mansoor a ko wax janax la ak muus janax ñëw ci sëriñ bi na ko dama bëgg bayre sëriñ bi yëkkati bayre jox janax janax génn muus kar ko fu xool gis muus fu mu xool gis muus sëñ Mansoor ay nettali de mm-hmm. fu mu xool gis muus mu dell retour na ko dama juum musluwaay laa wax bay ki ko man dëgg xam la muy ànd ak dëgg ñaar yi ngay mixé doomi jàmbur joo fi yëkkati butéelu bayre jox ko ko wala jaaru bayre jox ko ko te àndut ak kaaraange juróom-ñaari fan juróom-ñett ba mu dee. juróom-ñett ba mu dee. laaj ma lu ko rey. ndax jinne dana ko sopp. nit ku baax dina ko sopp. nit ko bon dina ko sopp ndax mag ñi mosuñoo nangu dëmm xam nga luñ mos a nangu. làmmañu aay te dafa bëri ci jamono jii. bayre am na waaye bayre dëgg day ànd ki kaaraange jaaru dëgg ba nga koy takk dafa am sarax yooyu def soog koo takk. bayre dëgg ba koy sangoo dafa am looy def ba pare soog koo sangoo. gis nga boo di ndaanaan ci ñaan yàlla koo ngemb war na noo yëg ne kii yaa ko ngemb. to tolof tolof yu métti du ci jóg waaye bayre dëgg boo koy laal day ànd ak kaaraange ñu bari ñu ngi leen di jox bayre ñi leen ko jox ñoo leen indil musiba ndax da koy laal tey rek suba nga def tooxi doona dëgg nañ tamit ne bayre bu nekk dafa am waxtu nekk ak li ñu koy sangoo bu dee jàngkat bi boo ko joxee bayre daa am heure bu nga ko war a sangoo bu dee musicien bi daa am heure bu nga ko war a sangoo waaye bu dee mbërum làmm mi moo xam bu dee nit koo xam ne day yëngu ci nguur nga demee sëriñ bu xamul lii nii waragoo mën a jox nit bayre loolu bëgg naa nga ko askan bi émission bi dégg nga ma taxaw na la dama mën a ñaan dégg nga ma wax la ko ne dama mën a ñaan mën a ñaan ja xam nga lu tax loolu man mbir mu ne dama xam heure bu ñu koy def man sama kër gii boo fi ñëwee mën ngaa bañ a foog ne sax man maa ngi yëngu ci ñaan ndax doo fi gis lu lay déranger man dama xam système mu ñaan yàlla xam nga lu ko waral man mag ñi laa xam lañ daan jëfandikoo ma fexe ba xam ko la ma ko xamal yittee la li tax may leen dama mën a ñaan gis nga tey ci tey nga bëgg nit bayakoo ci réew mii dem ci meneen réew ak a yomb wàqexa buñ fa demee dama leen ci joxoon ne xaalis waaye wàqexa la fa ne moo tax buñ ne la banque finance ci alquran buñ la ko laajee da ngay dem sóoratu wàqexa bu dee danga nga bëgg a tukki sa waqiha dinaa la fa génneel ñetti waaw ñetti waaw ca waqiha boo ko sangoo balaa 15 jours yee jot bu dee da nga bëgg a transféré wu ci meneen réew da ngay dem kanaa alquran a neex waaye li ma la wax man li tax ma ne dama mën a ñaan dama xam yoonu ñaan ñaan yoon la boo war a dem Kébémer bàyyi yoonu Kébémer doo dem Kébémer te nit ñi kenn ku ne dafa am tabixa boo xam ne fa ngay jaar ba mën koo dimbale. koo xam ne xamoo lu ay raw xaanam laaj xamoo lu ay raw xaanam bañ nga ne ko jox ma million ma taxal la da ngay fenn. sëñ Mansour boroom daara ji sama sang ba nee na ma boo bëgg jox ci foog naa bëgg jox ci yaakaar naa lu la nit di laaj wala lum lay waxloo baa nga coy dugg xool ko. man du ma liggéeyal kenn ci ñaan yàlla te seetalum la kenn amul boobu maqaama ñëw rek na ma soxla direct man la indi nangam jamais de la vie du am. jamais de la vie du am ci sama dund. Mhm. baa ma laan la indi kay dafa am fu ñuy njëkk a jaar ci bunt bi mhm. ndax alxuraan ko wax. Mhm. bunt ba ngay jaar ak man ba pare ma soog laa ñaanal yàlla bo ndax seet dëgg mën naa xoolal tey alaaji dégg daaj mu ne ma dégg daaj ay mbiram sunguf a koy doxal sëriñ si li nga yut sunguf ma yebal ko ca séeréel sa ñaan yàlla dafa am tra dafa am trafic da ngay da ngay dem da ngay transhumé kii sëñ Cissé ko war a ñaanal kii kële ko war a ñaanal waaye ku ñëw nga ne àdd jingo c'est pas bon c'est pas bon dégg ngeen li nga xamante ni sëriñ Cissé borom finance waxtaanee na ko ci wàllum ñaan yàlla waaye bàyyi tamit mbokk ñu defaat ci tuuti tey defaat ci tuuti seetlu ndax sëriñ bi leeral na ne nit ki du ñëw rek nga jox ko bayre te defaloo ko li nga xamante ni mooy kaaraange moom nag jàmbaar la kilifa la borom xam-xam la te ku yàlla may ci wàllu ñaan yàlla te borom sutura la du ñaanal kenn di ko filmer comme ni ko ñenn ñi di defee. numéro téléphone yi moo nekk noonu ci suufu ecran bi di daw sëñ Cissé général borom vidance sëñ bi sànq da nga ne El Hadj kenn wur koo cof wax jooju laa bëgg nga andiwaat ci ay leeral ak lan moo waral nga waxee noonu. da góor yàlla fii ci réew mii di Sénégal di nitu yàlla xaqan nitu yàlla xaqan man waxuma la alaaji Malick waaye njabootu alaaji Malick ku ci dut baaraam man ma dut la baaraam la sama sang bi sëriñ Babacar Si mii doon wax photo bi boo demee ca suuf nii nga gis mu def ca baaraam ba sëriñ Babacar Si dane diine ji tarixa bi ku ci dut baaraam man Babacar Si ma dut la baaraam waaye njabootu alaaji Malick man sëriñ Cissé mu Serigne Babacar Cissé Saalum Saalum bii ku cof njabootu alaaji Malick boo ma déggul xamal ne Cissé la woon te moom dëñ na. mais kan moo leen cof kan kan la. xam nga Iran moom ci boppam bu ko réew mi nawee réew mu bëgg ko yàlla kër alaaji Malick alaaji dégg yow mii ma jàkkaarloog di wax ak yow boo waxalee yàlla mosoo xam ne. Iran Ndaw saalum saalum la. xam nga lu ko waral. dafa judd ay wéy juróom am ci moom yaakaar indi ko fii Tiwaawan. Mm-hmm. mu ñëw fii ci biir Tiwaawan. Mm-hmm. yàlla def muy waxee kàddu Tiwaawan. Mm-hmm. ñépp naw ko nangul ko. ci xam-xam ni mu koy génnee mu leer. waaye nit ki lu àdduna neex neex na nga xam ki neexal sa àdduna. lu àdduna dox dox na xam ne ki ko neexal kenn la. Habib Sarr mu maam Mansour mu mag ma bàyyu xalifa bi day wax ne alaaji Malick li tax njabootam li tax mu ñu doy waar dañ lay jox fas jox la laxab jox la pepp saa soo féqee muy dem nga foog ne yow la bu ñu nangoo yëf ya nga xam ne du yow. kon bi day maa la ko wax. maam Mansour moo daan wax lii ba sëñ Mansour ñu tuddee ko ko muy dikkaat di wax lii. kon Iran ñun dañ koy def référence. ndax di ko xoolee xadara ba kon am na yenn kàddu yoo xam ne bu ñu toogee Iran mbooloo wër ko mu ne Tiwaawan moomuñu ma. wax jooju dana metti ci dégg-dégg. Tiwaawan moomuñu ma Iran bu ko Tiwaawan moomul ñan ñoo ko moom ci réew mi. ñu ko fi moom. ñu fi moom Iran. Iran maa yor daara Serigne Babacar Sy waxoon naa ko. yow titre ci àdduna yow la yàlla jox. maa yor daaray Serigne baaba Sy tiitër bu gën a rëy boobu am na ci réew mi. Eh. fan nga yeewoo Tiwaawan laa yeewoo lu ko gën a rëy ci réew mi am na. yow yeewoo xoo yaa ko wax yeewoo cees Thiès yeewoo xoo Ndakaaru Tiwaawan ngay yeewoo sa yi bopp yi doo ci tëdd yaa ngay fanaan ca daara Serigne Babacar Sy ji kon ku la moom. lay wax moom. kàddu moom. Mm-hmm. lu ne mën naa neex. Mm-hmm. waaye barke bi nga xam ne moo taataan ba dugg ci sa jëmm ji ba buñ la gisee. kenn du ne la Ibrahima Badiane ku la gis day bëgg siga lay bëgg a teg ci sa kaw ndax ni nga jaxasoog deretu siyeen si kon ngelawaay nañu deferaat toogaay yi te xormaal mag ñi te kenn ku ne cër ba nga am yàlla jox na ko ceew waaye teewul ñi nga xam ne ñoo taxaw ci sa ginnaaw bu sa cër fës nañ leen di fësal saa sune ne te xam ne ñoom la. bi làmb ji suuxee am sëriñ su génne làmb yàq na dootu baaxati nga ne ma làmb dina baax te dana gën a neex ren ñu gis mbër yu bëree bëree bëree bëree bëree am combat am ma woo ne ma sa waa ji sëñ Cissé la ma waxoon amati te mbër yu bëri amatuñu woon yaakaar ci arène bi ndax corona bi dikk promoteur yi ñiy tàmbalee bàyyi ñiy ñàkk xaalis Gaston Mbengue ñëw tëgg ay combat yu bëree bëree bëree bëri bëri sëñ bi euh, na nga gisee làmbi Sénégal ren jëli mas nii li wala gëm nga ne làmb ji dana gën a ko alaaji dégg man damay sant borom bi subhanahu wa li tax ma koy sant man réew mii li fi yëngu danaa bokk ci ñi ñuy woo di leen laaj du fubal bi du làmb ji du daara yi lu fi xew bokk naa ci ñiy dalal xeli lii la yàlla dogal ci sama jëmm ji man ci si sama abu Aboubacar Si mm-hmm. waaye du lenn nag duma ci bàkku damay sant borom bi bi may waxtaan ci làmb ji di leen leeralal nan ngeen mën a def ba yëfi nekkaat fa nekkoon. maa ngi ko doon leeralee. ci site ba nuy wax Leewtoo. waxtaan ci bañ na ma sëriñ bi kanaa dafa am ñum yor di leen entraîné ci ruq bi li ma xam a bari. li ma man bari. boobu nit ñi bawoon nañ làmb. nit ñi kenn safootu làmb. yàlla mi dara teewul yàlla dimbale leen du man. ñi war a bëree ngi bëree ñi war a daanu di daanu ndax yi fi foo dem foofu la de comme ci biir sëriñ si ñi am xaalis a ngi am xaalis ñii wax a ngi wax ñii liggéey a ngi liggéey ñii yàq nga yàq société boo dem am na loolu. sëriñ si delluwaat ci àll bi bàyyi affaire ñaan yàlla ne dañoo dem bàyyi dañoo yorul secret wala dafa am lu tax ngi dem defi loolu. xam nga ñaan yàlla du ñëw jël fii tey toog fii ci sa këru bopp gi. am fooy liggéey def fa émission dem toog ci benn ruq di retirer na c'est pas bon nit ki sa kër gi nga yor ku la soxla na la fa fekk lu ngeen di séq ngeen séq ko koo amee lu bagage fexeel mu jot ci bagaasam koo diggaaleeg ci wàllu mbir fexeel lam la wax bu mu la gën a nekk gor na ca jot lii rek a yëfi alaaji dégg du leneen ñaan yàlla compliqué wul ci boo ko tegee ci yoon bu compliqué ci yow rek da ngaa wàcc yoon wa. bu compliqué ci yow da ngaa wàcc yoon wa waaye feeg yaa nga ci yoon wi mbir mi du métti alaaji dégg. lii rek la. lii rek mooy mbir mi sëñ bi tey moom bëgg naa nag nga maye secret xaalis am na ñoo xamante ni fañ tëdd yàlla xam ne ne seen bopp tëju na ngir lan tabaski gi waxuma la xar mais am na ñoo. alaaji dégg réew mii di Sénégal. dafa am loo xam ne dama bëgg mu dakk nee ma lum la coowal góor jigéen yi ñu coow ci plateau tele yi na dakk man général Serigne Cissé mu Seydi Aboubacar Si coowal góor jigéen ci sunu réew mii na dakk nee ma lu tax muy dakk yow nit nekk ci ay mbiram bëgg mu jàll chaque jour nga toog ci plateau bi naan góor jigéen góor jigéen benn waaye nga ci ruq ba xamul luy muuf mu góor jigéen mu dem la nga baat ba nga wax moo tax mu dem di seeti góor jigéen baat nga wax moo tax mu dem di seeti góor jigéen waaye lu mel ni Jamra ak yeneen i yeneen i muumaa yi nekk ci dëkk bi nanu fexe waxtaanee leneen te ba góor jigéen yi ndax manuñ lu du tardeel ñu manuñ lu du sonnal ñu nanu waxtaanee sunu mag ñi yu baax yi ñu def ci réew mi ñun Sénégal ku fi ñëw day foog ne lu baax amut fi ndax niñ fësalee mbon ci réew mi da ngay foog ne Sénégal jëf ju baax amut fi te Sénégal lu baax li ëpp lu bon li fukki yoon ak juróom waaye dañuy jël lenn di ko valoriser di ko valoriser ba ndaw ñi daw di dem ca loola ndax lu mu da communication bee toogul pour lan loolu plateau yi ñuy toog di waxtaanee góor jigéen na dakk te nu seet lu nu waxtaanee waxtaanee téere bi yàlla bi wala ñu waxtaanee mag ñi wala ñu waxtaanee réew mi fi mu toll ba góor jigéen ñi nañ leen ba ñiy jaruñoo waxtaanee du wuñ nitu dara ku yàlla gërëmut yàlla def la góor nga ne danga nga nga tànn la la neex de da nga koy doni ba yàlla te nekk ci sa yoon yàlla xalak na leen rëbb na leen ci anam yu bari ñoom góor ñooñu ay seen bopp tur wi sax ni ma koy baamtoo tey mu bëri sama gémm yàlla na ma ko yàlla jéggal waaye nañ leen baax waxtaane waxtaanee nañ leen baax a waxtaanee ci plateau yi te waxtaanee nu dimbalee dimbale nit ñi ba ñu siyaari juranti nit ñi ba nu ñuy xamee Serigne Touba dimbalee nit ñi ba nu ñuy xamee Alaaji Malick ñaareel ba suma mbokk Serigne si Alaaji Malick dafa nekk ci réew mi ba jógee fii déggoo mu wax fi lenn. Seexul Xadim ca Touba. déggoo mu wax fi lenn. Makunta Njaasaan. sa Njaasaan. maam Abdoulaye Niass. ca Kaolack maam Khalifa Niass. ca Léona maam Amari Ndaas Seck. mosoo cee dégg kenn ku jëf ñu ne moo waree karaamatul xay ni ngeen bëgg réew mi mag ñii ma tudd ñu ne ci réew mii. ngeen bëgg a caaxaane réew mi bu foog ne réew mi ngeen di caaxaane yéen ngi caaxaane seen bopp lan mooy karaama karaama dafa am fu mat a jëfandikoo am fu mantu jëfandikoo ay damay xar géej ay damay naan géej boo naanee géej gi no sonnal lu di jën yi fu ñu jëlee ci jën yooyu noonu xeet woowu nga wax yépp nekk fa kunkande sama waa ji nga ne dangay naan géej gi kunkande ah kun. sama xarit nga lool nag waaye géej gi bul ci dugg ba ko baxal géej gi ndax ña fa ne yori bakkan dafa bari te boo ko defee du baax génnug nitu yàlla Alaaji Omar Ndaw ca sa Saalum. dafa ñëw dafa mbir dafa am foo foo foo amee njëriñ am foo amul njëriñ mu ñëw war a jéggi gars yi na ko tey jéggi amul mu ne chauffeur bi taalal ci digg géej gi la teg oto bi oto ba ko defoon ba léegi boo demee Daaru Salaam mu nga ci digg kër ga lii jëfi nitu yàlla la waaye wax ju jur tiital man jooju wax bëggatuma ko koy waxtaanee fii démb nag ma toog man général ci guddi ma am ku gis ku jàllale lu baax te loolu laay xaar ci pénc mi muy xam-xam waxtaanee mag ñi muy sang bi mataar yàlla na yàlla fay la sëñ maxtaar soxna yàlla yàlla fay la lii lay xaar ci pénc mi ndax bëgguma ko gàkkal deru sëriñ nanga waxtaanee baax na saaxo maxtaar soxna bëgg nañ ci lolo yàlla na yàlla gën laa kartanal waaye lii mataar def laa bëgg ñépp di ko def ku ko ci def na buñ dalee sa kaw bul wax ndax boo demee assemblée luñ fay réunion. li baax ñu teg ko ci yoon lu baaxul ñu génne ko fa. fii nag ci wàllu ñaan yàlla fii ci Sénégal gii. sëriñ Cissé di fi ne ku caaxaane ñaan yàlla ma dal sa kaw ak koo mën a doon man awma ci xarit. loolu yàlla dogal xam nga nag mënuma jotaay ak yow ba dem ta laajuma na ci garabu kàttan gi ndax biñ ko fi waxtaanee nga am ñoo jëflanteel surtout waa bitim réew yi dañ ma woowaat ma jot ay retour ñu ne ma garabu kàttanu sëñ Cissé bi lii doy na waar ndekete euh, du ñëpp a mën garabu kàttan moo tax ma bëgg sëñ bi nga andi ci ay leeral laata ngay tàggatoo aska askan <laughs> dama mos a toog di seetaan ndeysaan benn waay ne li may jox góor ñi ci mbaam suuf laa koy liggéey ma ne xosu billahi mina seytaani rajim mbaam suuf menn mi ma xam si ngay liggéey yëfi góor a ku la dóor nga jël yow mi wax wax ji. xam nga léegoo léeg nga dégg ambulance bi na ñëw na ñëw na gaaw ñu ne lum da ñu ne malade bee sonn li tax ma ne duma ma waxtaanee ci kàttan man nit ñee ma sonal ci kàttan ba foog ne man kàttan rek laay liggéey pour lan loolu moo taxoon may la duma ma waxtaanee ci kàttan man benn fii benn fële si laay dox benn fii benn fële si laay dox man alaa ji dégg mm-hmm. wàllu nguur dama ci man dara de dama wax bër ki dem mu ne mën a joxe dépasse ci biti te mën a joxe dépasse ci biir ku ci bañ mu dal la xam ma ñàkk maa xam ci jii jamono wóorut laa ilaaha la waaye man bu ma la nattalee boo ñemee li tax ma ne la ñi ma dama ñi ma koy jox dama koy seet ku ko naan koo séq ak def ko ko te man yëfi mag ña laa yore kàggu mag ñi man moom si laa yoolu moo tax ma am sañ-sañ moo tax man lu may wax dama koy booleeg reetaan yu neex dama koy booleeg reetaan yu neex sama xol bi di firi ndax dama xam la ma yor lan la man <laughs> xam nga li tax yëfi di neex man ki ma bind bind leen ay mbiram laa yor moo tax du ma ciy wax di rap rap dugg ci yenn yeeg yooyu <laughs> li yor dafa neex boo ko jëfandikoo sa mbir di neex sa fépp di neex koo jàkkaarloog mu neex le wasalaamu aleykum jërë ngeen jëf. mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni sëñ Cissé borom finance tàggatoon na ko yaakaar naa tey xol neex na waaye yaakaar naa xol yi féexati na yaakaar naa tey kontaanati ngeen ngir lan xam-xam feeñ na wax ju dëggu feeñ na waaye leer feeñ na baatin feeñ na ngëm yàlla tamit feeñ na. mbokk yi sëriñ bi ñu doog a ñëw dañ ko fekk tàngoor woo xamante ni émission bi mu koy def mënta toog ngir lan am lu ñu waroon waxtaanee waaye numéro téléphone sëriñ bi mooy 77 297 69 51 wala 77. 035 66 64 wala 78 018 55 65 mbokk yi numéro yi am na whatsapp saa soo wootee rek di nga jot ki nga xamante ni mooy borom vidange général bi ki nga xamante ni mooy borom sunguf si jambaar yi sëriñ Babacar Sy yàlla yàlla yokki leeram sëñ Cissé lañ leen andi ci jotaayu xam-xam jotaayu bànneex mbokk yi doon seetaan MPROD TV yi jërë ngeen jëf. ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay ma yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi yàlla dolli